suba ak gannaaw suba. waaw eh, léegi yéen bi dëkk bi Pastef Pastef ak ñi mu àndal taxaw ci dëkk bi ngeen waaf. kenn déggu leen bàyyi ba affaire bi jeex. ngeen génn mais yéen waa APR. yow bi eh, Pastef di yëngal dëkk bi kenn déggu la te yow yaa. très bokk nga ci ñi question boobu remercier ah. naa remercier naa la trop te pour nga poser ma parce que sax sama kër. nit woo ma nee na ci wax sa xalaat am na ku jël je crois que c'est vendredi la wax sa xalaat si TFM ñun dégguñu dégguñu far Ngom boobu mooy wone ne su mbirum politique jógee ci biir réew mi lépp lu laal APR laal Macky Sall daf may laal man xaw ma kenn mais nag jamono yooyu nee naa la wax naa ko ci Seneweb feebar bu jantal boobu mooy coronavirus dafa nekk feebar bu jantal. ma amoon ko hospitalisé à l'hôpital Fan. génn war a dem noppalu su du woon loolu Farba Ngom xam ngeen ne sama làmmiñ nekkul sama biir poos néewu ma la kenn du lakk sama kër néewu ma la kenn du toj sama oto néewu ma la du sama kër mais bi may dugg ci arène politique dama sóoraale yooyu yëpp dama koo paree ko lool nak dama koo paree sóoraale ko lool engagement bi mu jël di def politique yooyu yëpp dama koo paree su doon su doon jamono yoyu yalla may me kattan te wéru ma dara jappuma boba loy def. duma xex bu la nga wér. parce que comprendre li fi nekkoon du Pastef kese c'était phénomène la bo xamné Sénégal mo jógoon ay critères yi bari ño dajalo ci ben moment am ko xamné dafa jël kàddoom di lancer ay appel pour nañu toj nañu nañu nañu tal yalla dogal bobu mission mu nekk bo xamné mu réussir mais bo xolé réew coronavirus am njaayum presque amatul bobu ñu nekkon ci jamono couvre-feu vingt une heures jamono ji do gis kenn ñepp ñi seen biir kër jaaykatu ndambe yi jaaykatu araw yi gisutu kenn mënutu ci am dara te ñooñu ginaaw yalla loolu li nga xam ne dañ ci yëngatu daan seen doole ci loolu mooy la ñuy suturlu jaaykat dibiterie yi ak fast yi les musiciens nga xam ne dañuy organiser ay soirées les restaurants ay dîner, ah hein, ay boîte de nuit yooyu yëpp amul euh, euh, euh, nawetaan match de football yi xale war a génn dem am fu ñu défouler di changer air amul làmb nga xam ne ne mon ami frère euh, euh, Gaston war a organiser làmbam bi dimanche loolu amul donc yooyu mu nekk mbir yoo xam ne ne boo ko dajalee yëpp moo dajalee ci benn moo dajoo ci benn moment boo xam ne ne nit ñi di génne seen naqar ma maa lay laaj ci benn question Babacar ana waa APR waaw xaaral ma jamono bi dëkk bi yëngu ana waa APR non wuy ma rek da ngay xam ne réew bu yëngatoo réew bu yëngatoo mbirum suñu borom la man mi amna munuma ngagne wa aper APR parce que amna ay wa aper ño xamne ni ñu ngi won fii te ñu ngi doon yëngatu c'est pas tout le monde mais amna nañu waa APR ñoo xam ñu ngi won fii te bokk APR dañoo waaf. ñaar la ba ñett. dañoo waaf amnañ leen ño doon wër plateau yi. ma ne waaw ba tay mais lolu dal ils sont euh, aper lañu bok amna am ñeneen ñi ñu ñenn ñi amna ño xamne xam ne la dañoo waaf. amna na ñi. dañoo waaf gi amna na ñi dañoo waaf amna na ñi dañoo tiit amna na ñi gëmuñu yalla gëmuñu seen bop gëmuñu yàlla gëmuñu seen maanaam arène politique boo ci nekkee mhm. arène politique boo ci nekkee TFM gii groupe gii bi ñu attaqué est-ce que politique tax ñu attaqué ko je te pose cette question ñi ñëwoon ba fii group Futurs Médias attaqué ko dañoo mën a tooñ rek léegi très bien du yaa ko wax ci sa gémmiñ du waxuma ko de tooñ ku mun a tooñ xam nga ne dem ci kër jàmbur di ko toj wala dem ci organe de presse diko toj wala dem ci magasin jàmbur diko toj lolou togn la yaa ko wax yow ya ne dañu mënu togn yow yaa ko wax de waxuma ko yaa ngi ko assumé wala assumé ko seen taxawaayu politique mom la la expliquer affaire yëpp nga ni gëmuñu yalla ah ah ma ne leen am na ñoo xam gëmuñu yalla bu la yalla bolé ci mbir nga bok ci am ben niveau bo xamné né ne dax ko ñin ñi jang jiituwoo wolé ci parti bi se wërsëg ñew ak confiance du chef de l'état mu jël ay responsabilités dënk la ko bu fekkee am nga xel bu moment joté bul dem di xeex parce que on n'est pas en guerre civile lolou suxetuñ ko pour euh, ñaanuñ yalla suñu rew mais demal au moins dans les plateaux dans les radios woné sa position que né li ak li la parce que politique lolou mëno ko ci génne ki taxawone ki togon ci plateau di nan li ak li di ŋàññi suñu nguur di lolou nga taxaw né ko lolou du deug bo yoré argument lo mëno reprocher Macky Sall ci aduna même ñi wacc ci mbedd mi ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un bon bilan

ci biir dem plateau lan le président de la république xalaat moy damay. lolou dara garaawu ci. déedéet bàyyi leen garaawal bu ñu ngeen nan état état état lolou dara garaawu problème d'état sax mais yow mi bo jógee sa kër ngay ñëw fi émission ñuy bokk toogaay am nay question yo xam duma la ko laaj nag wax deug yalla nak li nga xam lan la Macky Sall xalaat ci lolou ma ñëw fi wax ko ci plateau suma paré paree ma ñëk njëkk weddi non même pas. ah si. Il y a rien de li nga wax ak chef de l' président de la république mu wax la leen ben doomu aadama munu laa wax ne lan moo nekk ci boppam kenn. yow sax du la wax. luy man ku dul man ku dul man chef de l'État c'est une autre dimension kooku du affaire caaxaan li nekk ci boppam nee naa la ku loo ko wax rek. surtout ku mel ne Macky Sall bul yóbbu affaire tamit fu mu yeggul. non moom la chef de l'État chef de l'État la chef de l'État modestie la humilité efficacité intelligence. du weesu loolu. Hein? surtout modestie humilité. modestie waaw oyof waaw ça ne veut pas dire que li si yow fait wax loolu mooy sa oyof kay moy nga wax ak ñi nga waxal. yaatu ci sa gis-gis ni Macky Sall bi dëkk bi yëngo ñu waaf. yow ci sa gis-gis ñoñu lan mo ci en tout cas je man yoruma commission de discipline de la paire, mais man sama jëm engagement politique des mot soit 100 la wala nga engagement 98 2% yoyu xamu foko réservé xamu foko réservé un été de faire nek 100% té tamit même 100% bi bu nekké 101% 102% aussi amna calcul man lool la xam ci engagement boron maki noy engagement engagement 100% maki sall noy def 100% la warul nek moins warul nek plus bu nekké moins il y a des problèmes ci yow mi ngi yow mi engagé bu plus il y a des calculs yo xam dang ko neub té waxoko lool la engagement bu nekkee plus rek y a des calculs cachés man dama xam ci engagement 100 calcul caché mooy mooy ngarale. Moi, non moi, ngarale yaa ngi yaa ngi ànd ak euh, nit ki te fekk yaa ngi sóoraale leneen kooku nag booy ut première non, wa waa non. est-ce que identifier ngeen leen bu bax? on n'est pas en po euh, c'est que xam nga suñu mbirum parti nak duñ ko fi xawi nak suñu mbirum parti wax la fi ak li ak li wala li mais na la un chef de l'État président de la République au courant de tout lu gën bari lu ne bari ci walu dundum réew mi situation Sénégal xam ko donc xam na engagé xam engagé wul te même ñoom ñi ci seen bopp wa APR ku ne xam nga lan nga def. leen def da leen di dakh ma ku ne xam nga def. bu dee da nga engagé 100% ñi dox ak sa xam nga ko. engagé dara da nga di seetaan sax sax di ci ñi te na la ni ko du ñàkk moom it mu xam ci un ou deux pour cent. léegi damay laaj ba xam ñi nga dañoo yor ay poste ñi nga xam ne dañoo yor ay poste te defuñu leen war ci seen gis-gis. défendre ñu président xam nga mbirum responsabilité kooku hmm? confiance di chef de l' état la. dama ne bu doon yow nooy def da ngay bu doon yow nooy def déedéet man bu doon man may lan laay def dadul man nag. bu doon yow nooy def bu fekkee du man nag nan lay def comme léegi du bu fekkee ne man nan laay def te du man man engagement bi ma yor dama ko assumer. kenen ku engagé wul mom ci boppam nee naa la kenn mënu laa wax li nek ci bopp du chef de l'État munul nek da ngay wax lo xalaat rek wax la lo xam wala lum la wax tuuti ci mom nga fogg ne ne considération bimu la jox jox ko kenn te bo woné ginaaw mu delloo porte bi recevoir kenen wax ko lo xam ne lu la waxul c'est ça que fonctionne un État non la noonu la noonu la État di doxé c'est que boy wax ci État dang koy fuural fuural bo xamni mo am ah non.

kenn ku ci taxaw dinaan am naa ndombol tong bu ko neexee dans la nuit demain toogatoo sa place keneen ñëwaat léegi def la patience au service ñëw wutu la loolu ça c'est l'état loolu ci gën a tuuti nag léegi